mbokk yi baaxoo di ñu teewlu ci seen site bi di xibaaru Bambuk ñu ngi leen di dalalaat bu baax ci seen émission yi nga xam ne dañ koy amal fii ci kër gi tey nag ñu amal fi émission diine ñëpp xam nañ ne jamono yi ñu si jamonoy weeru koor di bëgg a màggal weer wi ci ay gan yu màgg gan yu tedd ñu fas yéene waxtaanee ci diina rawatina ñenn si mag ñi nga xam ne tey diine lislaam bi fii ci réew mi daal dinañ fi amal lu am solo ñu mën cee lim mel ni Cheikh Ibrahima Niass. tey nag ñu amoon mbégte bu baax dalal fi Moukhadam Abdallah Ndongo nekk eh, yarkat nekk eh, alim koo xam ne jàng na di jàngale di jàngale xam-xam waaye nekk tamit eh, di taalibe Maolana Cheikh Ibrahim am ñu muy yar ci yàlla gannaaw ba nga xamee ne am na ñoo xam ne mu ngi leen di jàngal alquran dinañ waxtaan ak moom yaatu ci Baye Niass waaye tamit dinañ ko tënkee laylatul xadri bi nga xam ne fas yéene na am ni ki suba te ñoom moom jamaa bi nga xam ne daal dina koy jiite fii mu daal di koy fas yéene organiser donc balaa ñu di fas yéene tàmbali mbir mi rek dañ koy jox kàddu gi muy muqadam Abdallah Ndongo bàyyi ko mu présenté muqadam bisimilah alhamdulilahi alladi bi niamatihi tatimu salihat salawatullahi wa taslimatuhu ala madadil kainat sayidina muhammadin awali barisin min atajalliat wa ala alihi wa ashaabihi alhudaati siqat wa ala taabiina wa taabiihim bi ihsanin fi jami tatawurat Euh, mbokk yi ci islaam mbokk yi ci iman mbokk yi ci ihsaan waaye mbokk yi ci ihsaanul ihsaan mu ngi nuyu kenn ku nekk turam ak jëmmam comme ni ko Cheikh Ibrahim di ko baaxee di waxee litihaadul ismi wal musamma parce que tur yi maanaam parce que jëmm ji dafa lamb maanaam ay cër yu bëri maanaam 363 cër waaye mboolem bépp cër boo xam ne woo nga woo nga ko ci nit ki rek waaye du wuy si maanaam boo woowee tànk tànk du ñëw boo woowee loxo loxo du ñëw boo ne bët bët du ñëw waaye boo ne Abdallah rek cër yëpp ànd wuy si kon nu ngi koy wax litihaadil ismi wal musamma maanaam tur bi dafa benn ak jëmm ji moo tax ñu ngi lay sant bu baax di la ndokkeel di ndokkeel euh, sama saar ak euh, ak Demba ñoom leen ndokkeel bu baax ci weeru koor gi ñu lay wax ni li salaa sax waxoon ne weeru koor awaluhu rahma aw satuhu maghfira axiru itqu minan naar maanaam benn bi maanaam yërmande la maanaam diggi doomu bi maanaam njëggal la maanaam fin bi maanaam den lay goreel maanaam ci safara loolu rek boo ko boo ko indee te ci zahir nga gis ko mhm. xam nga tey boo xëyee suba maanaam suba teel mi mhm. ma ci yow maanaam sonn ko mhm. waaye boo dee ba ci bëccëg nag mu nekk maxfira gis nga boobu yaa ngi sonn gis nga séeri instant baa ngi sonn waaye boo dee ba ndog jot nag mu nekk it ko mu naar nag léegi da ngay maanaam dog kontaan parce que yéen di wax na ne maanaam weeru koor maanaam ñaari am na ñaari mbégte mbégte beneen bi maanaam boo dogee da ngay am da ngay kontaan te tamit boo dajee yàlla tamit da ngay kontaan kon ñu lay nuyu baax ci weeru koor di ndox di la ndokkeel wax na ahlan jërëjëf ci tàmbali bu am solo boobu daal dinañu fàttali eh, ñett fukki fan yi nga xam ne daal dinañ koy bu ci weeru koor bi mu tojal ñu ko noonu ci zaahir tojal ñu ko si nu mu gën a jege muy mbégte boo xam ne am nañ ko bu baax ci Moukhadam Abdallah donc dañuy continuer ci waxtaan bi rek comme ni ñu ko waxee léegi Euh, naam dugg nga ci koor muy ay ponk boo xam ne ci diine lislaam na ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy jox cër ndax mun nga ñëw indaatal tuuti rek euh, ci waxtaan ci wàll euh, koor balaa ñuy gën dugg ci li nga xam ne mooy diine ci waaw waaw Seydi Top Baye ñu ngi lay ziar bu baax di la ndokkee tamit sa tur bu màgg bi nga xam ne moom la tuddee wax dëgg yàlla weeru koor mooy weer boo xam ne weeru pour sell la même bu dee zahir rek pour maanaam nit ñi am wér-gu-yaram xam ni du salaatam dafa wax ne maanaam suumu tasixu maanaam wóor leen gin ngir wér gis nga wéeru koor day tax nit ki maanaam wér parce que boo ko walee maanaam 12 mois yëpp yaa ngi lekk yaa ngi naan am na ñoo xam ne tey ñu ngi am maanaam ci wàllu maanaam yaram bu bëri léegi nag weeru koor bu gisee bu ñëwee bu ñu wooree seen gere yi sax dañuy wàññeeku loolu yëpp ngir maanaam am maanaam seen jàmm yaram loolu tax yàlla lépp lu mu digle rek maanaam yàlla lépp loo xam ne yàlla digle na ko boo xoolee njëriñ doomu aadama lépp yàlla tere rek boo xoolee maanaam tamit boo ko bàyyi tamit sa njëriñ la lépp lu yàlla digle boo ko defee sa njëriñ la lépp lu yàlla ter tamit boo ko defee tamit sa njëriñ la rek léegi weeru koor na boo ko ci 12 mois yëpp yàlla loolu yàlla lu mu jàngale mooy bakkan bi dañ ko war a defar delloo ci boromam parce que weeru koor tey lu mu fiir mooy mooy da ngay gaw da lépp loo xam ne sa bakkan bëgg na ko da koy gaw maanaam doo lekk doo naan gis nga ñetti ñi doo lekk doo naan doo sëy ñett yi moom da koy bàyyi ci bëccëg loolu dafa lu muy jàngale parce que boo nee laa sifatan rek daa am lu muy génn am na ñoo xam ne xam lan mooy laa sifatan parce que yàlla bu mu nekkee bu mu nekkoo zaatu moom rek mm-hmm. dafa am mm-hmm. laa sifatan mooy amul naan mm-hmm. wala isman amul lekk wala xilaafatan amul mooy bëccëg bi loolu la ku ku nekk nag li mu firi a dellu ci boromam moo tax léegi nag koor gi bi mooy lii kenn ku nekk nag maanaam bu lekk bul naan parce que misaal dafa wax ne man saama ramadaana man af man saama ramadaana imaanan waxtisaaban lillaahi gufira lahu maa taqaddama min danbihi wa maa taxar képp koo xam ne ku woor weeru koor yaa yaa ngi sakku ci yàlla maanaam yàlla daf lay jëggal nga sellal sa daf lay jëggal sa bakkaat bu njëkk ak sa bakkaat bu mujj lii rek kon jar na ne kenn ku nekk weeru koor ñëwee nga woor kon ñu ngi macha allah leeral yi na solo ci weeru koor bi donc dañuy parce que tudd nga ko léegi bàñes li mu wax ci Euh, ni mu jàngalee tamit euh, li nga xam ne mooy weeru koor ndax mun nga ñoo ñëwal ci diggante euh, bàyyi ak li nga xam ne mooy weeru koor waaw bàyyi moom loolu dafa yaatu parce que xam nga alxuraan dafa wax ne nit maanaam shahru ramadan alladi unzila fiihi hmm. boo continuer ba aaya bi yàlla dafa wax ne hmm. nit maanaam bu fekkente ne yaa ngi nekk ci weeru koor maanaam maanaam nga tukki maanaam waroo woor charia may na la nga bañ a woor hmm. waaye alxuraan mu ne wa anta suumu nag xayrun lakum su ngeen wooree moo gën bàyyi mu ne man yàlla may na heure bu ma tukkee yàlla may na kattan boo xam ne dinaa ko woore <laughs> loolu yëpp kon doy na sant yàlla la moom du nëba dee maanaam mosu dog weer koor fu mu ko fu mu ko fu mu ko fekkee rek maanaam day woor loolu yëpp sant yàlla la incha allah jërëjëf donc ci li ñu indal ci taxawaay bi nga xam ne Mawlana Cheikh al Islam daan na ko am ci weeru koor bi comme ni nga ko waxee naam booy tukki yenn distance yi may nañ la pour que bañ a woor waaye xamal si nañu ne moom bàyyi même boobu jamonoom même bu tukkee lu métti métti lu mu sori sori danaan woor parce que jàpp na ne loolu moo mooy diggante comme dafa bokkoon ci ñuy samp di gën a dëgëral diine bi moo tax ponk boobu daal doon na koy amal bu am solo gannaaw loolu tamit ñu des rek ci alquran parce que tamit wax nga ko léegi su euh, weeru ko lañ wàcc alquran euh, bàyyi tamit am na jaar-jaar bu am solo boo xam ne am na ko alquran ndax mun nga ñu seeti dikkal waaw Cheikh Ibrahima moom alquran maanaam euh, bu ñu ko doon misaal mooy lii yéen di waxoon xam nga mooy alquran bu mooy Cheikh parce que bàyyi moom léppam alquran la parce que boo xoolee ci xataa ci juddam ni moom dafa teel a mokk alquran léegi doomam yëpp mu yar leen maanaam ci jàngal alquran parce que alquran mooy mbir moo xam ne mooy mooy mooy mbir moo xam ne mooy xujja bàyyi mooy alquran xujja la mooy dalil la pour maanaam lay la pour sa diggante ak borom moom naka nga war a def pour diggante ak yàlla kon nekk Cheikh Ibrahim parce que alquran waxu yàlla la léegi nag lépp loo xam ne taas na ci yàlla rek parce que escalier la pour nga war a jaar pour nga war dem ci yàlla kon lii waxu yàlla la leetar la bàyyi mu ne lettre li mu firi mooy pour maanaam nga jàng ko léegi boo ko jàng nga firi ko lan moo xew lan la yàlla wax exemple tey président bu bu fi ah bu fi defar benn lettre rek dañ ko war a lire xam lan la fi wax léegi nag loolu da lay pour nga am doole maanaam wala nga am maanaam pas-pas pour ma dem ci président alxuraan bi tam loolu lay firi te diggante moom loolu mooy maanaam alxuraan bi gis nañ tamit daje yu bëri ñoom buñ koy amal rawatina taalibe Cheikh Ibrahim dañ koy tàmbale ak alxuraan mm-hmm. loolu lan nga ñu si mën a yokkal waaw parce que xam nga comme yàlla mm-hmm. moom nit yàlla yàlla moom moom ñëpp kon yàlla moom ñëpp kay balaa ñu tàmbal dara kay wax yàlla ñoo la tàmbale dëgg mhm. am solo muy kàddu am solo tamit dikkalaat nañu tamit ci alxuraan euh, comme ni ko pays bi ñu nekk ci pays bi ni ko fonkee rawatina jotaay bu ñu mënta am buñ koy tàmbalee dañ koy tàmbalee comme ni ko waxee balaa ñuy wax suñuy kàddu ñun en tant que nit ñu jiital kàddu yàlla bi te jàpp naa ne foofu la bàyyi tegoon tànkam loolu la ñu expliqué muy euh, Moukhadam Abdallah di fàttali rek na Moukhadam Abdallah lañ dalaloon tey ci émission diine ji Euh, nga xam ne comme ni ñu ko waxee yarekat la ci yàlla waaye tamit yarekat la ndax mu ngi yor daara di jàngal ay ndongo ay ndongo ay xam-xam ak alquran muy lu am solo tey ñu daloo ko ci ëtt diine ji fii ne fas yéene ko waxtaane dañuy des ba léegi parce que tey mag ñi ñëpp koo wax mu ne la royukaayam jubluwaayam mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey mun nga ñoo dikkal diggante Baye Niass ak yonentu bi waaw neex la ah. loolu benn jëmm la parce que bàyyi sa rajolaan yonent bi bàyyi lépp ñu teel a masala salaam léegi nag dafa mel ne waaye nag ku xamul nag xam nga boo xoolee diggante bàyyi sa rajolaan ak yonent la masala salaam parce que lépp mooy sunna bàyyi di wax ne wasaana ilaahi dahara nafsiya laa ura amiru ilaa maa laysa fi shari jaaza yàlla aar na sama man lépp loo xam ne lépp lu sharia mosuma def loo xam ne sharia araamal nag lépp lu mu dafa dëpp ak sunna léegi nag sunna nag mooy yonent la masala salaam lépp lu mu def rek maanaam loolu la Cheikh Ramis def amul lim ci yokk bàyyi dafa xam ne ko ahmadou babullahi wal qasdu naahu wa ballax na tanzila ma zada ma naqas waaye mu ne yónni salaa salaam matan lépp te wàññul dara te bàyyi comme bàyyi topp na yónni bi ida sa wa in xalla yaman fal masiru bay baytu buñ miil la boo xoolee guddi gi li sa nga yaay fan li wax guddi gi xam nga dafa am 12 heures de temps léegi nag bëcc bi da koo dippi bëcc bi te am léegi nag bis bi moo ko dajee la nga dara am 24 heures comprendre nga loolu mooy diggante bàyyi bi salaa sallam comme ni guddi gi amee 12 heures de temps bëccëg bi amee 12 heures de bëccëg bi ñëw bis bi moom bu ñëwee vekkati ram lépp lay boole sa nga yaay defaral di mu ne boo xoolee diggante bàyyi bi salaa sallam mu ne gis nga bàyyi day xool doom ji mu ne ko doom gis nga yaay day xool doom ji mu ne ko doom waaye gis nga doom ji mu day xool baay ak yaay parce que li nekk li woon ci baay ji ak ci baay bi la d waaw loolu tax bàyyi li ne woon ci lépp la boole moom waaye euh, yokk na ci wax ji ne kuy sàkk maanaam euh, jot ko ci bëgg yeneen bi am na kàddu yu ñu ci yëkkate hmm. bëgg nañ nga leeral la ñu ko bu baax waaw bàyyi dafa wax ne foofu man na bëgg jot ma ci bëgg ni salaa salaam sàkk nga xam ne lu jombal loo a nekk mu teg wax waaw parce que nit nit xam nga lu fu mu ko fu mu ko teg mooy eh. yow kenn gën laa bëgg sa bopp kese Ah, loolu rek mooy lay <laughs> bi kenn gën laa bëgg sa bopp kese loolu kay li mu amul leneen dañu lay loolu rek la <laughs> jërëjëf jërëjëf Moukhadam wax dëgg yàlla kàddu yi leer a te jege na lool macha allah te waxtaan bi tamit mu ngi am solo te ñiy dégg tamit ñi ngi xam bu baax fi ngay fi ngay waxee ak fi ngay teg sa tànk mm. donc dañ koy wéy rek di ko continuer ndax euh, wax nga ko léegi am na fu bàyyi waxee ne mm. ñaari sëriñ la am muy mm. sëriñ fi zaar muy kitaabu sunna sëriñ baati muy Cheikh Tidiane bëgg nañ nga ñëwoon ñu si mooy Cheikh Tidiane moom nga xam na waaw waaw loolu dañ ci ñëw xam nga bàyyi dafa wax ñaari sëriñ la am benn boobu ñu ko la ma salaa salaam bàyyi ne boobu benn bi tamit mooy Cheikh a da la am te Cheikh Tidiane du léegi nag ñaari sëriñ xam nga benn waaye dafa ñëw laaj Baay Ñas mu ne ko yow ñëpp xam na ne yéen ma salaa sallam moo indi charia Cheikh Tidiane indi tarix yow kon nga ne yàlla leen de loo indi bàyyi mu ne ñe laaj waa ji mu ne ko bi ñaari kaas bi meew bii soow booleem boo boole bëggee bool nay def waa ji mu ne day wut kaas bu mag baa mu nekk ana tirkal kaas baa mu man ma kaas boobu nag te kaas boobu man la parce que boo xoolee comme li ma la wax ni léegi rek benn jëmm la gis nga euh, yére yi maanaam maanaam ngi yëre bi warulaa ndax xam nga sang yaay di faral di wax rek sang yaay mu ne mu ne gis nga nit bu ëmbee nii boo weddee ëmb bi du am xam nga bu mu ëmbee dafa am nu tudd ëmb la bu jóoree tudd liir tudd dem ba jamono pourtant tudd waxambaane pourtant liir bi nag ndax liir bi dafa dee wala di wala wala beneen jëm moo de liir bi moo nekkaat waxambaane bi dem ba jamono nag nekk paax léegi nag waxambaane bi tamit ndax boo amutoon waxambaane doo am paax loolu mooy diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Tijaan gis nga bàyyi nag bi bàyyi musaa la ko parce que yéen saa salaam yéen bi di ñu ko wax muy liir déedéet waaye nag lu mu doon jàngale jàngale ku ñu jàngale liir parce que charia dafa ñëw ñëpp fekk ñëpp ñu ngi jaamu beneen yàlla bu yàlla yu bëri njaaloo araamul dara araamul léegi nag bu bu jëkko bu jëkki-jëkkoo rek mu ne ñëw la kaale ma bulee bu ci metti waaye da lay indil mu jullil gis nga léeg-léeg mu naa la saraan sangar araamut waaye wala mu naa la araam na bu leen di bu leen julli bu leen jege sangar gis nga dinax gaay ci xel wala mu naa la boo defee lii da nga wala lu ne xale rek bu jooyee nga ne ko boo jooyee nga indi ko sibsi mm-hmm. waaw ah, loolu mooy nax nga indi ko sibsi mm-hmm. àjjana ay uur ay nit moo fi nekk loolu maqaam xale la ci ñi ko ñi ko topp mm-hmm. léegi da dem ba jamono seytaan indi ñu mooy yoon yoon boo xam dafa dafa war a foo jëm kon dafa war a foo jëm bàyyi bu ñëwee nag ma ne man nag kaay la ma eggale fi ñu war a jëm foofu nag parce que imagine te balaa nga jël tarixa tijaante wala balaa nga jël fayul il faut nga nekk julli ba pare nekk jël tarixa tijaante pare door nag maanaam jëm ci yàlla nag loolu mooy diggante bàyyi ñu sa indi salaa salaam maanaam benn jëmm leen maanaam nit ki bàyyi dox fi intixaali fil kawni rek baal intixaali nit ki mooy tox di toxu rek xataa alquran dafa wax ci alquran bu muy jàngal wax ci waa safar mu ne kullama nadijat juluduhum baddal naahum juludan ghayra yàlla mu ne bu ma dugalee nit ñi safar ni yàlla day jël nit lakk ko lakk ba lakk ba mu nekk dóom yàlla mu ne changé waat dëri pourtant changé waat dëri pourtant indiwaat beneen jëmm comme yàlla def na ko safara xanaa mun ko mun na ko def ñoon ci aljana xanaa te bu dee aljana yéen moo nekk jëm jëm jëm aljana mm-hmm. ba moo fi nekkoon kay mag yi xanaa yàlla mu ne ko indaal beneen yëre bu bees mu ko wala voilà kàddu yi leerati na euh, ñi des rek ci tarixa tijaan bi parce que tamit Baye dafay woote woon ne moom ci euh, tarixa bi la bokk bokk na ci kàngam yi sax mm-hmm. yi nga xam ne ñoom bokk na ci ñuy défendre jamono ji tarixa tijaan mm-hmm. mun nga ñëw dikkal si Baye euh, tarixa waaw tarix tijaan moom mm. loolu farata la xanaa ne léeg-léeg nga dégg nag sëriñ bu tooy nag bu yàmbar maa mm. la sëriñ tijaan du farata nangam na déedéet sëriñ tijaan farata la mm. xamu tax lépp luy ràmb nit ki ci safara farata la lépp loo xam ne nit ki lii bu ko defee day tax nit ki dugg àjjana lu farata la parce que lu tax alxuraan def yàlla defal ci alxuraan mu ne gis nga nit ñi bu ñu xam bu ñu xam la mooy tarix tijaan gis nga gis nga télé bu bari bi ngay gis fii nii ak ñàkk am doom yëpp ñàkk a ji tarix tijaan rek ah yàlla yàlla ma ko waxee yàlla ma ne fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursili samaa aleykum midraaram wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara yàlla ma ne bu ngeen di wax astaghfirullah dinaa leen may alal yu bëri dinaa leen may ay doom kon képp ku tële jàppal tariqa tijaan képp ku amul dara jàppal tariqa tijaan parce que tariqa mooy loo xam ne yéen saam dafa wax ne walladi nafsi bi yadi law lam tudnibu wa tastaghfiru la dhahaba allahu bikum wa la jaa bi qawmin yudnibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru allahu lakum indi mu ne fekkente ne maa ngi waas sama bakkan bi fekkente ne defu leen ay bakkaat ngeen di jégalu yàlla dinaa leen fi raafa indi yeneen ñi ñoo xam ne dinañ ci mooy yàlla bari di koy jégalu jégalu parce que mënoo jégalu te fa istixfaar te ci tarixa la ko te ci alxuraan ma ko wa asila mm-hmm. da ngeen yàlla ngeen istixfaar suba ak mm-hmm. te gis gis nga tarixa bu ko nit ñi xamoon ñëpp ko jàll gis nga jamono yi di ñu dafa waxoon ne dafa am benn heure boo xam ne dafa am ci euh, ajuma bu demee ba jant bi di waaj a képp ku ko fekkee yaa ngi tudd yàlla di zikar yàlla di zikar maam sa sa sa yaram araam na safara léegi ne benn jour Aïcha mu wax jànkam bi mu ne ko taxal ma ci mbedd bi nga xoolal ma ban a daje mun a daje maa heure boobu bàyyi mu ne leen haada maxsusun bi tijaan yi bàyyi loolu tijaan yi ñoo ko jago kon jàpp tamit jàng farata la ata bu mu am 21 ans la bindi nasihatu minni ila ixwaani fal tariqa mahadil fadli wa ridwani ussa bisnati al furqaani donc loolu day firnde rek ne jàpp gi nga xam ne jàpp na ko tarixa bi à l'âge de vingt et un ans mu bind li livre boobu di ruwal adab mhm. parce que boo xoolee xam nga li ma la wax nii rek gis nga alquran mhm. waa li alquran dafa ne wala istaqaamu ala tariqati lasqaynaahum maa'an ghadaqan bu ngeen juboo ci tarixa bi naa leen naan ay ndox yu sel yu nitax léegi nag gis nga ni kenn ku nekk bëgg jàmm ndox émiens yi de kenn ku nekk minéral kenn ku nekk bëgg na ko wala surtout yàlla ne boo jàppee tarixa bi naa naan na la ay ndox yu nettal xanaa war na xam ne kon loo ci dégg képp ku jàppul tarixa bi doo am ndox mu nettal yooyu kon lu alxuraan indi rek loolu farata macha allah jërëjëf ci lay yi nga xam ne indi nga ko ci tarixa bi ak taxawaay bi nga xam ne Baye Niass xamoon na ko ci euh, ba bind ci livre bi nga xam ne ci la jëkk a bind mu daal di koy dénk ndaw yi dénk ko ñëpp parce que dane nasatu mi ne ila ixwaan ixwaan moom ñëpp mun nañ ko mun nañ cee mu doon loo xam ne lu am solo waaye tamit duñ fi toog di waxtaanee Baye ba tëj duñ wax ak faydu bi nga xam ne moom la indi wax nga ko léegi am na ku ko laajoon lan la indi hmm. waaye gis nañ ne ba Cheikh Tidiane diggee faydu bi ci taati faydu temps la asabi hmm. donc Baye boobu ñëwee dafa woote wa faydu boobu hmm. gis nañ ne faydu tas na ci àdduna bi moo xam Ghana Nigéria ba ci États-Unis ba ci Europe lépp tey mun nga bëgg nañ nga leeral nañu si faydu Cheikh Ibrahima boobu noonu waaw faydu ba léegi hmm. defe ni oto bi moo dem rek waaw defe ni uh-huh. xam nga Baye dafa wax ne hmm. waalamu anna laaha saaqal wujuda ma saaqal xalaak hmm. wala yanju minu ahadun illa ma razaqallah ma bar sayidna la xatimi tijaani wa dalika la budda ne xamal yàlla defa mag ngi ñëpp pour yóbbu lañ ci alkaani yàlla bu mu bindee yi bind ñëpp yóbbu leen ci alkaani waaye mu ne kenn du ci mucc dul koo xam ne yàlla wërsëgal nga bëgg Cheikh na Ahmad Tidiane waaye loolu nag il faut nga nekk arif billah waaye loolu mu ngi amee ne ci tàmpu léegi comme indi bi sallallahu moo fi nekkoon mu ne nekk ana mu ne ana wala sayyid wala di aadama man maa nekk càng mboolem bindaa fo képp ku ci dër maa nekk sang yàlla indi may ko maanaam islam maanaam mu koy doxal ci nit ñi mu nekk lampe boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi nekkoon ci ay lëndëm xam lëndëm moo nekkoon cosaan comme pour lire mm. nga mën a mm. ko man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu fil akhirati mina al-khasirin képp xam ne ku jàpp beneen diine bu islam dangaa perte mm. gis nga parce que am na diine yu fa nekkoon dem ba jamono nag cheikh yaa tamit radiyallahu anhu ñëw cheikh yaa mu ne tariqa tariqati tansaxu jamia turuq kama millatu muhammadin yaa mu ne sama tariqa bi nasaxal na mboolem diine yi

waaye lépp jóge jooju salaa salaam man Cheikh Tidiane man maa koy capté kon loolu leer na léegi nag kon mooy capté nag léegi Cheikh Tidiane yor na ñëpp d'accord nañ Cheikh Tidiane balaa muy di dafa wax ba ñuy dugg ci ay kuréel ay mbooloo mbooloo te wa naasu fi xaayati maa yakunu min diiqi wa shidda boo jamono crise moo amoon Cheikh Tidiane bind ko def léegi bu Cheikh Tidiane amul kenn ku taxatu mu ne ma maa doon Cheikh Tidiane ها باي في باي في من من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بوتان إذا أنني خليفة التجاني كيف كما بغنا جسم خني ما ما خليفة الشيخ تجاني lu tax bàyyiwuñ loolu mawhibatan la min ahmad al adnani loolu may boo xam ne ci ñu saasan la jóge léegi nag fekkee dafa am ko ko woote kay nag ko wax gaay parce que gis nga faydu bi nag bàyyi dafa am faydu bi ci yàlla jóge baa mu ne fa ilahiya min hadarati rahmani summa yasri ila haqiqati jógee ci yàlla jaar ci yunus salaa salaam yunus salaa salaam ñëw nag maanaam séddale ko mboolem mbindaa fa ni parce que pour nit ñi texe moo tax pour nit ñi gore macha allah ci faydu bi gis nañu si ay gis yàlla wane yàlla loolu lan nga ñu si mën a wax <laughs> bon waaw gis yàlla moom loolu mooy eh. cosaan gis yàlla eh. gis yàlla moom mooy cosaan parce que si gis nga ñu ñëpp gisoon nañu yàlla ci asal gis nga ñun ñii ñëpp ki saar bi sax gisoon yàlla sama sama saar bi gisoon yàlla de eh. xanaa da koo fàtte gis nga ci asal nii ñëpp yàlla xam lu waral mm-hmm. yàlla di ko wax ne wa ba axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bala ci azal boobu ruux yi kenn juddoogu ñëpp ngi ci azal léegi jàpp ci fasanti ci ay ruux yëpp ku lëre yàlla xanaa nekkul ma maa nekk seen borom gaa ñu ne waaw bala d'accord nag léegi nag yàlla xanaa bu waxee ak ñun xanaa war nañu ko gis xanaa pourtant sax waxoon nag yàlla ko fàtte rek waaye yàlla wax na nga tontu yàlla mu ne xanaa dama moom ñëpp ne balaa yaa ñu moom kon xam nga kon gis yàlla mooy cosaan léegi nag kon gis yàlla mooy cosaan léegi nag bu ñu nit ki juddoo rek loo tax yonent saa salaam loo tax loolu moom mission yonent bi nag xam nga moom moom même bu jaaree ci àddina moom du fàtte alxam ne sama laa moom fu mu nekk day gis yàlla moo tax parce que xam nga fu mu nekk day gis yàlla parce que yonent bi day toog benn jour woor ñaari fan saabay gis ko muy woor rek te dog du dogut muy woor ñaari fan saaba ni mu woor ba saaba yi commencé xam nag mu ne teel ngeen lekk man am naa lekk fa yàlla am naa naan fa yàlla parce que moo tax parce que moom xam na ne yàlla moo fi nekkoon ba léegi léegi fàttali yàlla loo tax mu ñëwoon ne ne léegi ne léegi xoolal lu a garaaw mooy ñëpp ñaari loxo yi <laughs> léegi léegi nag gisul yaay gisul xamul dara fu nekk fa la koy defee léegi léegi nag foofu mooy jëm aljana nag parce que li xale ku koy ñëw fab mu aljana mu amul aaya xale fu mu nekk fa lay def lépp léegi ku koy ñëw fab ko lu mooy jëm aljana comprendre léegi ñun ñëpp gisoon nañu yàlla foofu léegi nag dem ba mu commencé en une semaine nga wutal ko tur indi ko kiraay de boobu yàlla tuddee ko loolu de yaa yaa ko créé tur tudd naa tudd naa ko Abdallah tudd naa ko Moro tudd naa ko Saar xam nga yaa ko indil kiraay sangal ko ay yére gis nga yaa ko indil kiraay rek dem ba jamono commencé xammee yaay ji nii kiraay la dem ba jamono moo xam ne ko ndekk ne yaay ji dañ ko yilif bu ko yaay ji laaj rek mu làqu ci baay ji nga dem ba am naa fere bu xale yi commencé làqu làqu ci fere gis nga kiiraay yi bëri nañ de dem ba nekk mesure nag tel ma ko yaay nafsul mutmainna yow bakkan bu dal irji ila rabbik ne la sa ah, ko la ne ko raadiyatan demal nga dellu ci yàlla cosaan mooy nga tarbiya ji parce que gis yàlla mooy cosaan gis yàlla mooy cosaan mooy cosaan la mooy cosaan donc wax nga fi jaar ba ñu fàtte ko comme ni ko waxee mm-hmm. keroog ci àlas bi rab bi ku ñëpp waxoon balaa te boo tontoo nit euh, cela veut dire que jàkkaarloo moom li sant kàmm a war nga koo mën a muy leeral yoo xam ne am na lu leeral yu am solo yoo xam ne indi nga ko ci faydu bi nga xam ne euh, moom la ñuy dund muy euh, faydu chebrail mm-hmm. gannaaw loolu nag ñu daal di jublu ci li nga xam ne moom lañ dënmal ni ko suba mm-hmm. muy leelatu xadar bi nga xam ne jamaa fidiyaanu sirixen nga xam ne Mawlana Sang Barham Ndiaye moo ko jiite moom fii ci dëkk bi nga nekk fi mu xadam ñu fas yéene amal laylatu xadari ni ki suba mm. bëgg nañ nga ñëwoon ñu si si programme bi li ci am ak ñan ñoo ko ñoo ko fas yéene waaw xam naa ne euh, balaa ñu tàmbali foofu sax dafa am lu ñuy fàtte waaye dañ ko waxaat ah, maanaam mooy dañu war a njëkk mu sang Barham Ndiaye pare xam naa ne xaal bi rek ak kii ak tamit wéeru koor kii saalu bi dafa xaw a tàng dañuy xaw a sant saar a njëkk tey la ay cëram ci barke mm-hmm. a ñàkk sens sëriñ boo xam ko mm-hmm. bi dafa wax ne uduuni bi alsinatikum lam taasuuni biha hmm. na ngeen ma ñaanee lamine yoo xam ne mooyoo leen ci yàlla hmm. comme léegi sa lamine mooyu ma ci yàlla soo ma ñaanee dana nangu man de su ma la ñaanalee hmm. ci laylatul qadri balaa ñuy ci laylatul qadri dafa am benn bu mu bëggoon dugal tuuti ah, mooy euh, suñu mbokk ko séeréer yi nañ def attention nañ def xam nga wéeru bu ñëwee wéeru saal ne tey tàng ba pare nag gars yi di laqatu di lekk di naan te yéen bi dafa wax na man aftara min ramadan min gayri udlin wara maridin lam yaqdi siyaamu dahra kulluhu képp koo xam ne yaa ngi wo yaa ngi dog ci weeru koor amul benn ngant benn bis rek nga dog ci boo waroon adduna bi yëpp du loo mun laa kon nañ kon gis nga ñëpp buñ defar rek weeru koor ñëw ne ku ne ku fekkee da ngay woor sax di ndox sax di ko di ko defee defee ko noonu comprendre waaye làqatu nga weeru koor bi dafa métteeg nangam te gi wala damay liggéey te mënoo am ci weeru koor bi loo xam ne amoo ci li onze mois kon loolu tamit dama ko ci bëggoon dugal rek incha allah laylatul xadri bi. waaw léegi ñu laylatul xadri laylatul xadri mooy bis boo xam ne. alquran fa la wàcc. alquran alquran dafa wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalul malaayika gis nga benn guddi googu moo gën tey sama dund wala sa dund parce que tey jamono yi kenn tey dund ay 83 ans bariwut léegi benn guddi googu moo gën 83 ans loolu yàlla xeetu illustration la ko may te yàlla wàccee ko ci weeru koor léegi nag ñu ngi koy préparé nag kon weeru koor alxuraan ci la wàcc sa yaay dee faral di wax ne weeru koor mooy anniversaire alxuraan kenn ku nekk ñun ñi sa anniversaire bu ñëwee da nga koy feete eh, pour maanaam yàlla may la at yu bëri man la may la ay cër may la maanaam ak nga nekk jaamu yàlla al anniversaire alxuraan nag mooy mooy kii de mooy weeru koor moo tax weeru koor bu jotee gars yi di firi alxuraan léegi nag gaa yi tamit di fanaanoo julli léegi nag comme alxuraan ci guddi ko di la wàcc sax ñun tamit ñu fas yéene anniversaire bu mag boo xam ne pour alxuraan la pour alxuraan kese ñu waxtaani maanaam alxuraan yonent Yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu taxoon moo alxuraan du wàcc kon alxuraan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu def ko fii euh, mbedd bi ni ginnaaw euh, maison de la justice hmm. waaw ñu fi dalal nag wax dëgg yàlla ay sëriñ yoo xam ne yu mag ñoo xam ne ay muqaddam Mawlana Sanga Barham ki nga xam ne moo leen yar te mhm. sëriñ mag mel ni euh, Seydi muqaddam Ousmane Sow euh, koo xam ne muqaddam la bu mag koo xam ne ko am xam-xam zahir ak baat ñëpp naw ko ci xam-xamam te nag jeex ci yàlla lool euh, ak tamit ko ay zakir yoo xam ne tey bu nawutoon wutoon Ndiaye tey da leen di luwe eh, ku mel ni Cheikh Mbow boo xam ne zakir boo xam ne ànd bi yëpp ñu ngi koy wër mel ni tamit Cheikh Mahmoudou Bachir Cissé par exemple day ñëw incha allah saar yu sax invité nañ la dégg ku mel ni tamit aadi euh, euh, euh, zakir macha allah moo xam ne ñoo xam ne ñu mën zikar lañ wax dëgg yàlla xam ne tanta bu ñu dugg xam naa ne eh, eh, séeréer yi commencé tëj waaw mel ni tamit Mourtala Cissé ruhul maani macha allah ñu leen di ziar bu baax ñun ñëpp ñu ngi leen taragal incha allah xam naa ne suba képp ku fi nekk maanaam ci tund bi invité nañ la bàyyiwuñ kenn képp ku nekk ku ashadu an laa ilaaha illallaah xataa mbokk séeréer yoo xam ne moom lekk rek mooy mooy seen cër invité nañ leen ñoom tamit. waaw koo xam ne ci jamaa bi la. waaw boobu mooy Mouhadam Racine. wallaay daal di koy jagleel bëgg bi loolu maam moom da koo yelloo. xam nga nit day da nga koy tuddee mbir pare. Hmm. fekkee yelloo waaye moom da koo yelloo dëgg yàlla. moo xam ne yàgg na ci jamaa bi te xam ne xidma kàlla ñëpp xam nañ xidma kàlla jël ay alalam di ko joxee hmm. xam nga alal dafa sax ci xol man joxe ko rek dafa jaay suut nag ngay koy joxe ci yàlla loo xam ne joxe joxe waat moom loolu bu ñu ko tuddee du koy lu koy yelloo la maanaam dañ ko ñaanal rek xam naa ne fu mu bëgg a àgg yàlla ko yàlla àggali ci barke Sanga Njaay incha allah macha allah waxtaan bi am na solo waxtaan bi tamit am na solo waaye balaa ñu koy yëkkati rek ñu bàyyi la quelque euh, waxtu rek nga wax ci Mawlana Sang Barham comme ni nga ko waxee léegi naam moom la waroon tàmbale mais du tere tamit tëjee ko ci nga xam ne ànd bi nga xam ne ànd nga ak moom mm. waaye aussi bi nga xam ne mu koy leeral si jamono waaw comme xam naa ne ligne bi moom xam na képp dugg bi maanaam mu ngi war a ñor xam nga ba léegi ligne bi xam nga mbir mi gis nga fond fondation nii boo ko tegee par yëkkati ci kaw gis nga ba daanee fondation bi lépp maam day mab waaye gis nga booy continuer gis nga fekkee fondation baa ngi mun nga di continuer rek loolu mbirum du yàlla gis nga yàlla moo fi nekkoon mooy defe li fondation la xam nga sang yaa defal di wax ne mu ne un million mooy misaal tey yàlla comprendre nga commerçant ci nga ci commerçant am deux millions misaal yi dala ma salaa gis nga 2 millions yooyu jur 3 millions mooy Cheikh Tidiane 3 millions yooyu jur ñeenti millions mooy Baye Niass gis nga ñeenti millions jur ma juróom millions nag juróom millions lii mooy julli mooy sang gis nga yi juróom la ñii lii lii lii rek la mooy ñaari loxo ñaari tànk ak bopp gis nga léegi nag kaw gi moo fi nekk asamaan suuf jaww ak ndox mi gis nga gis nga bâtiment bi ñeenti koñ yi ak bâtiment bu nekk juróom gis nga lii léegi nag sang jaane nag mooy nit ko xam ne moom missionnaire la xam ngeen ni salaasam dafa wax ne inna allaha qad yab'asu li kulli ummatin mujaddidan ci bépp jamono yalla da yéen koo xam ne bu ñëwee moom mooy beesal diine ci te ñun ñu ngi ci jamono te war nañ am koo xam ne mooy beesal diine ci te waa ji bu ñëwee Cheikh Tidiane boobu ne waa kuy beesal diine ji bu ñëwee idil waliyu laa yati qattun bi sharin bi fahmin jadid kooku du indi charia bu bees gis nga julli kenn du ko yokkati julli ay juróom juróom julli rek ay weeru koor ci benn at bi benn yoon kese gis nga ay aj màkka benn yoon mooy farata bi gis nga lii kenn du ko yokkati waaye nag chaque jour comme comme comme technologie bi a nag sa nga jaay day ñëral lii yoon da nga gis kéemtaan de mel ni gars xam ko ba léegi bàyyi mu ne léegi nag wa in waqaa shay'un xarwa min ahlil faydati laa yustaxrab waqat xam nga bàyyi daf fii la toog bàyyi mu ne waqat tabaatu kalaam arbabil maarif فما رأيت كلام سوى في القدم الأولى التي هي أدنى مراتب الفتح عندنا باب والحقيقة الثانية والثالثة فما شملهما راية فكم من سواهما وأين وإن وقع شيء غرب من أهل الفائدة لا يستغرب وقد يجد الإذن لكل من تحدث نفسه باب من بير فينا بولا وخبري الله waaye gisuma seen wax lu dul mu wutal la ndëgg bu njëkk bi nga xam ne moo gën a ndaw ci ñun gis kon bàyyi mu vérifié man vérifié wu ma xam nga yow xàqatu saañat ak ak xàq ñaari yi xent ko sànq léegi nag ne ñoo ko bi la bokk ko inkaar de wax mënul ne bàyyi ma ne képp ku toog di waxtaan na boppam ne te bàyyi waxoon na ne a sayru ilallaahi yante yi dox ci biir jëm ci yàlla day day jeex waaye a sayru fi laa yante yi dox ci biir yàlla du jeex nga yow ku ngeen fii nga juddoo te ba léegi am na kër yoo xam ne Moustapha teg sa tànk suuf naag yàlla nag ah kon loolu moom mission Sanga Ndiaye ñëw fi maanaam pour maanaam leeral jàngale nit parce que xam nga parce que nit mooy kan waaw parce que euh, boo xam ne man arafa nafsahu faqad arafa rabba képp xam boppam xam yàlla parce que boo xamee sa bopp rek xam sa gis nga nit nit dafa rëy de nit gis nga nit ñi xamoon nit dafa dajal lépp lu yàlla amal univers bi yëpp ko dajal nekk ci weex nekk bi ne bu ndaw cheikh jaamani ida kunte taqra ilma al-huruf fa shakhsuka lahun bi asr lakin jismaka juz'un saghir fi kay intawa al akbar fekkee da ngay jàng pour xam-xam maanaam xam xaraf yàlla mu ne sa jëmm ji allu la allu ndaw la man fa bindu mu ne lépp alam yëpp la da ko defoon sa jëmm ji léegi sa nga yaay loolu moom mission am nag bàyyi joxoon mu ñëw nag maanaam pour xamal jaamu yàlla yi mooy seen bopp xam nga jeex ci yàlla xam yàlla du benn parce que mu yàlla loolu jeex mu nekkee fii bu mu nekkee fi bu mu nekkee fi di mel ni rek yow ñëw nga Koungheul waaye léegi nga ànd ak Sarr fii mooy Mali fii mooy Diamaguène fii mooy nangam fii mooy nangam fii mooy préfecture fii mooy Bamba fu ñu nekk loolu mooy xam yàlla nag xamal la fi comprendre nga waaw ah, loolu mooy mission Sénégal. macha allah eh, jërëjëf eh, Moukhadam Abdallah eh, kàddu yi am na solo bu baax waxtaan bi tamit neex na yaatu na waaye aussi bëri na njëriñ ndax fi nga jaar yëpp bu ko déglu rek di nga gis ne am na njëriñ loo xam ne la lu am na njëriñ li nga xam ne mooy askan bi hmm. donc ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la jox kàddu gi rek nga tàggatoo balaa ñuy tëj émission bi. waaw balaa may tàggatoo xam naa damay dina sant sama mbokk yi. Hmm. sama mbokk saar yi. dëggal ñu leen taragal baax. <laughs> lii nag lii nag lii li nga def nii tey nii su ñu ko defar ay moo gën hmm. nañ fekkee sag weer benn yoon rek parce mbir la ba parce ñu ngi leen ñaal ci lamine suñu seen sang njaay mm-hmm. yàlla yàlla li ngeen bëgg yàlla ngeen am parce gis nga fii ñoom ki gëm-gëm rek Cheikh yaa defaan himmatul insaani xaayaatun maa a alarsi mu ne yitte nit moo mm-hmm. mm-hmm. yàlla moom yàlla mooy may ñëpp kon yàlla mooy may kon may na ñii mun mun leen may kay kon lii am chaque jour baaxul fekkee mënuñu ko am chaque jour mënuñu ko am chaque semaine mënuñu ko am chaque benn euh, chaque chaque un mois man maa fi ñu am ko n'est-ce léegi nag euh, ñu ngi leen ziar bu baax di leen ñaanal vraiment kontaan nañ trop yàlla na yàlla yokk maqaama yi yokk lijaaba yi ubbi wërsëg tamit yëpp seen kii bi fu gën a kawe kawe kawe kawe ci barke Cheikh itamit jiboo nga jiboo bu amee gis nga booloo ak a bari doole jamono yi dib salaa salaam bàyyi mu ne jullit yi bari ñoom waaye bu kenn xaccee ñëpp xacc bu kenn dóoree ñëpp dóor bu kenn kabare ñëpp kabar lu ko war mbooloo moo leen ko may yéen itam dafa ne yadullaahi maal jama ndimbal mu ngi ànd ak maanaam mbooloo waaye bu waaye waaye bu kenn nekk fi lii mu war a déedéet kenn ko indi xalaatam rek di mer fii loolu du demale kanam ni ngeen booloo nañ gën a nga indi yoo xa moom nga moom xale la keneen xale la xale bi ak ma bi kenn ko indi li nga am xalaat bi ngeen bokk ko gis nga defoo kii nga euh, booloo ko ko bu booloo amee rek day dem kon ñu ngi leen ñaanal bu baax ci barke weeru koor yàlla yàlla yëkkati ni mu yëkkati asamaan ci barke Cheikh euh, ñu ngi dalal tamit gan yi mhm. euh, séeréer bu leen fàttali yi nga ñëw na xam naa lekk lekk am na fa dégg <laughs> euh, lépp lu fi jub rek ci mbaaxu sang Ndiaye waaxul dawaan alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Moukhadam Abdallah comme niñ ko waxee léegi rek waxtaan wi am na solo te di am mbégte bu baax di ko dalal di fàttali rek ne alim la ko jàng la jàng na téere yi yar ay nit ci xam-xam moo xam ci alxuraan leneen waaye tamit di ya nit ci yàlla yàlla di tarbiya nit di leen yóbbu ci yàlla di leen xamal seen borom tey ñu amoon ko fii ci plateau bi doon waxtaanee Baye Niass waaye tamit waxtaanee ci koor gi nga xam ne nekk nañ fi waaye tamit laylatul bi nga xam ne daayira bi nga xam ne jiite na ko muy Fidiyaanu Siqin di daayira Mawlana Sang Barhaamu nekk fii ci Koungheul fas yéene nañ ko amal ni ki suba ñu siy xaar gan yu màgg yu tedd fas yéene ko amal ci parrainage Racine ni doomu Koungheul Racine ba doomu Koungheul di yëngatu si jamaa bi nekk xidmakat doon fas yéene ko ko ndokkale di am mbégte bu baax euh, di am émission bi di ko sant bu baax ci disponibilité aussi di sant aussi euh, PDG mi yombal mbir mi yëpp nekk ci caméra bi ñoom Birane Demba ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, lii lañ leen indiloon vraiment ci waxtaanu tey diine bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf